بسم الإله جزاء ربنا الكريم على خليفة الخديم سالي الخديم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته mbokki jullit yi mbokki taalibe yi xam ngeen ni bu ngeen gisee di ngeen xam ni seen télévision Mafatul Bichri tege na nag ca yoon wa ana wan yoon la tege mooy yoonu Xelkom yoonu xel koom nag mooy tool yi nga xamante ni Serigne Saliou Mbacke moo ko fi defalan Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul xam ngeen ni day Serigne Saliou Mbacke bi mu ñëwee bokk na ci li nga xam ne moom la wax dafa wax ni nan ma jox ndaw ñi ma def ci ñoom li sëriñ tubaa defan ci mag ñi waaye bëgg na ñu ko tax mu ni ma barkeeloo ko donte yooyu ma wax ji mbokk yi looloo waxan looloo waralan sëriñ Saliou Mbacke woote xel koom waaye xam ngeen ni mu doonoon tool yoo xam ni man naa fi saari'u ilaa maxfiratin min rabbikum mooy yéen yëpp na ngeen gaaw jëm ci njëggalul sunu borom subhaanahu wa taala mbokk yi xam ngeen ni Xelkom bokk na ci li nga xamante ni mooy tooli Serigne Saliou yi nga xamante ni kenn ku nekk xam na ne bu fa demee lépp loo xam nit ku baax dana ko am wala nit ku sel dana ko am ca liggéey ba muy liggéeyal yàlla mën na ko am ci Xelkom Xelkom it mooy tool yoo xam ni moom lañ mas sa fàttaliku ci suwaar tool boo xam ni da nga fay dem ànd ak sa waajur wu góor. wala sa waajur wu jigéen wala sax sa sëriñ bi nga jébbalu te ñoom kenn ku ci nekk du la bàyyeek coono bi kenn ku nekk day gën a bëgg a sonn moroomam waaye xam ngeen ne Xelkom mooy tool yi nga xamante ni dama wax saa su ne ni bayit wii nuroo naag lool sëriñ Saliou tuubaa li abdin muridin saadiqin lahumu bi xidmatin mooy Xelkom aw bi xubbin mooy jamono Serigne Saliou ñëpp bokk ñëpp bokk bëgg Sëñ Tuubaa aw hadiyaati ak koo man a yaakaar bokk ci ñi nga xamante ne dañuy dajale addiya di ko indi ki fi nekkal Serigne Saliou loolu moo waral ndaw ñëpp tey daw wuti Serigne Saliou waaye Serigne Saliou Mbàkke moom la Serigne Touba rafaatale woon lin xaadatal ujuru wal masaalihi bi teye wal jasbi wa inni saalihu te mooy nu ndaw ñëpp nga xam ne dañoo maase moom jamono day mel ni li nu yàlla defal mooy yeex a jóg ba pare dab sunu maas waaye mbokk yi xam ngeen ni Serigne Saliou mooy ki nga xam ni moom la sëriñ Tuubaa waxal ne ko asaalihu la si yu kammilul amal saalihu mooy ki nga xam ne bu ñëwee mooy mottali sama mébét mbokk yi xam ngeen ne mébét saa su ne xam ngeen ni boo ko waxul kan ko deey mënu koo xam kon loola waral sëriñ Saali bi mu ñëwee doon mu jàddit boo xam ni moo taxan mu wax ni nan ma jox ndaw ñi ma def ci ñoom la sëñ Tuubaa defan ci mag ñi kon mbokk yi gis ngeen ko nii foofu nag lañuy tàmbalee nag dugg ci seen tool yu sell yi nag ci xel fas yéenee nag janoog mbokki bi yi nga xamante ni ñoo nekk ci liggéey bi moo xam dajale ngooñ la moo xam ña nekk ca waañ wala moo xam ña nga xamante ni dañoo nekk ci camion yi di dajale ngooñ mi kon incha allahu taala lii mooy li nga xamante ni moom la seen télévision ma fatul Bichri fas yéene ànd ak yéen bismillah xad kaana ربنا الكريم على خليفة الخليل سلينا ابن الخليل قد كان يكمل العمل كل مريد جاي لما sunu sang bi nëpp na bun gisatee sunu sang ba yow ma asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu mbokki jullit yi mbokki taalibe yi mboolem mbokk yi nga xam ne yéen a ngi seetaan seen télévision ma fatul Bichri ñi ngi am mbégte bu baax a baax ci ñëw ci tool yu am solo yi nga xam ne mooy Xelkom xam ngeen nag mbokk yi ni ko xamee koom tool la yoo xam ni Serigne Saliou Mbacké moo ko sosoon ci ak nekkam waaye mu doonoon barab boo xam ni xam ngeen ni murit yëpp dañ fi daan yëg seen bopp waaye niñ ko waxee bi nga xamante ni yàlla dogal na mu dem déyaale jeeg boromam teewul liggéey boobu di wéy ci njabootam gi te Serigne Cheikh Ahmadou Mbacké nekk seen bopp waaye ak mboolem ñi nga xamante ne ñooy ay rakkam yëpp mbokk yi nag ñi nga xam ñoom lañ jàkkaar lool ñoom bokk nañ ci li nga xamante ni dañ koy def at mu nekk mooy saa suñu wootee Xelkom dañuy bàyyi seen yitte yëpp bàyyi seeni liggéey waaye di defar ay naan yu am solo yoo xam ni dañ koy dabe bokki talib yi nga xam ni ñoo nekk ci waar wi lu mel ni ay xeeti bisaab ak xeet xeet yoo xam ni euh, yu am solo lay doon ay xeeti citron ak xeet yoo xam dana baax ci liggéey nga xam ne loola ñoom euh, mbooloo lañ moo xam ni euh, ku ko gis nii da nga xam ni mbooloo lañ mu takkatoo moo xam ni saa su nekk seen waar dañ koy bay ci liggéey bi nga xam ne moom la ñuy liggéeyal Serigne Touba kon seex bi liggéey bu mel nii ana nan ngeen koy defee ak ban fierté ngeen yéeg ci saa su nekk bu Xelcom ñëwee ngeen bàyyi seen yitte yëpp nag ñëw nag fas yéene bégal taalibe Serigne Touba yi nga xam ni ñoo fi ñëw di liggéeyal Serigne Touba. asalaamaaleykum ñoo ngi nuyu ñëpp di sant Serigne Sidi Mokhtar di sant Serigne Saliou tax ñu di ko def mbir mi nag jub jub jubluwun ci lenn lu dul euh, liggéeyal Serigne Saliou moo tax bi nga bi nga dikkee sax dañ ko doon gàndal waaye comme liggéeyub sëñ Saaliw la waaye ñu jub jubluwuñ seen daal loolu bëgg bëggug sëñ Saaliw mooy li wér daal ñu tënk ko foofu nga xam ne bu ñëwee da ngeen koy waajal jënd ay bisaab. dañ koy yëg dañ koy yëg comme ni mën fekk dañ bàyyi si suñu yitte ànd ko ñoom ba mu jeex ñu soog a delluwaat suñu waaye lépp nag sëñ sëñ Saaliw dong lañ ci xenc du leneen waaw. kon yow daa mel ni jotoo présenté wu présenté wu ngeen ñu lay seetaan xam ne kii di. ndogal sëñ Saliou rek alaaji <laughs> waa Cheikh bi yow daa mel ni xam naa ne waar wi ku la gis saa su nekk dinañ la ci miin la ci sëñ Baara euh, sëñ Baara Wakanakal euh, liggéey bi nan ngeen koy waajale sëñ Ahmadou Diallo moom gis ngeen ko mi ngi noonu euh, saa su ne damay wax ni day day mel ni ndaje moo dem boo ko fekkul ci waañ wa rek fekk muy waajal ay xeeti naan yoo xam ni bu ñu xewle ba pare rek teg ko ci day mel ni day day day doon dessert bu am solo sëñ Baara bismillah maa ngi bu baax di julli ci yonent bi sallallahu alayhi ñaanal sëriñ Sidi Muxtaar Mbacke mu yàgg fa lool te wér te ñaanal sëriñ Cheikh Mbacke Saliou mu yàgg fa lool te man moom liggéey bi dafa naa ne sikkim laati sama jëriñ yaa ngi nii war a seq ma yaakaar naa moom mooy saa dikkee daal comme ni ko sëñ Alaaji waxee rek yéeg lay doon daal dañuy fexe dajal suñu xaalis suñu jot am as tuut wut ko ay bisaab ay suukar ñoo defar ko indil ko ñu nga xam ne bi dañoo nekk ci waar wi ñun daal loolu fas yéene liggéey sëriñ bi ci ci ci dong tool yi sëñ Cheikh mu sëñ Saliou di waajal bis bu ne asalaamaaleykum wa rahmatulah ñu nuyu mbokk taalibe yi di siyaare ñëpp di jégalu kàddu yi ñu bëgg yëkkati suñu jëriñ ñu àndal li ñuy wax dafa doyoon sëkk ñu ñaan suñ Sidi Moxtaar suñu borom yàggal ko fi suñ Cheikh liggéey bi mu yàgg ko taxawu ba ñu ànd ak moom làq ngërëmal Sëriñ Saliou liggéey bi nag moom li mu bëri géey moom mënee su koo takk ndax waxtu ne bu ñuy ñëw dafa am mbokk taalibe yoo xam ne ñun ñu teew ñoo ci gën a néew ñu ko seqal ñoo xam ni saa bu ñu jógee woo leen ñoom ku ci mënta teew da nga yónnee sa addiya ñu yónnee saako sukkar ñu yónnee ñaari junni ñu yónnee ay lim loolu la ñu dajale def ko jënd ko diggante bisaab ak sukkar ak citron indi ko ci tool yi saa bu ñu ñëwee itam na sukkar si tool yi ci lu mën a sukkar danañ ko def ndax démb ñëwoon nañ fi bis bu njëkk bi defar nañ fi juróom-ñaari bërigo tey jii bi juróom-ñaari bërigo ndox ci bisaab ak ak ak citron tey jii biñ ñëwee li ñu defar xaw naa tolloog loolu loola nag euh, liñ ci jiital mooy di ci santaat Serigne Saliou mi nga xam ni dañ ko yëg ba lu ñu woote ngir moom ñu jëg te mbooloo mi ñu àndal te feeñuñ ci lii ñoo ngi leen ciy sant ndax ñoom euh, desuñ ci ginnaaw saa bu ñu leen wooyee dañ def lu ñu mën ak lu ñu mënul ci seen addiye donte seen jëmm teewul ñoo moom moo ñu kàttanal ba ñu mën a def lii kon ñu xam ni mbooloo la boo xam ni yëg-yëg lañu am ci lii liggéey liggéeyal si Aliou li sëñ Alaaji wax rek nag mooy suñu jublu ñun sëriñ Aliou danoo nekk ak moom jamono mu dimbali mu defal na loo xam ni kawe na suñu yor ci melokaan yi ñu meloon ak jikko yi ñu amoon ak ak lañ daan dund te lépp mu taw feexal nu din dinañu ci loolu def nu ba ku nu gis am ñun yaakaar ne ay murit lañu loolu dañ koy sante sëriñ Saliou moo waral saa bu ñu wootee ab liggéeyam ñun duñ ci am sago du ñu xam guddina na du ñu xam bëccëg na du ñu xam waxtu woo xam ni sëriñ bi woon daal amat moomatu suñu bopp. la ca toppit ñu ñu ñu suñu bokk dongo tarbiya yi nga xam ne dañ fee newoon ñoom jaar ci daara ji te ñun sëñ Saliou dañoo tarbiya ci kër yi ñu ànd ak ñoom ñu tarbiya leen ci daara ji bu ñu ñëwee yaatal gi ñu yaatal loolu ñu ngi leen ciy sant ndax bu ñu saa bu ñu ñëwee nekk ci tool yi lu ñuy teewoo ñoom ñooy dukki dukki daw indil ñu ko te ñoom dañuy sàkku ngërëm ñuy sàkku ngërëm te teewul ñoom loolee dañ ñu ciy wan ni yaatal ñu ci ba mu mel ni ñoom lañ koy defal sax kon ñoom it ñu ngi leen di sant ci turu jëwriñ ji turu suñ làmp mi ñi ñoom ngeen fekk si fii ñu yaatal ñu jox ñu ndox bërigo taxawaay yëpp loolu daal ñu ngi ciy ñaan lépp yàlla nañ ci dajeeg ngërëmal Serigne Saliou ñu ngi jéggalu ci guddaayu kàddu yeeg waaye liñ bëgg wax yëpp xaju gërëm nañ ñëpp. Euh, jërë ngeen jëf mbokk yi xam ngeen ni dégg ngeen sëñ Ablaye ni mu ko waxee waaye dégg ngeen suñu wakkaan xaqan ni mu ko waxee muy wax ju am solo euh, dafa mel ni li mu wax Eh, te sëñ Alaaji Seck moom it jëkk koo wax lii mu wax rek mooy li sëñ Abdou Lahad Mbacke doon na fàttali daa wax ni as gor mooy koo xam ne boo ko defalee dara danaan yàlla naa fekke sa bis ba def ci lu ma man ak lu ma mënut ñun ñëpp xam nañ ni dañoo dugg ci masarratan li kulli abdin saalihin qaidatan li aslahil masaalihi loola war a kenn ku ne ci ñun bu mu wootee xel koom mboolem loo nekkan lu nekk da nga koy laf bàyyi ko ngir xam nga ni ne qaidatan li aslahil masaalihi ji loola moo la ci boole waaye lela ca gën a boole mooy lin xaadatil ujuru wal masaalihi bi tey wal uju wal wal jas bi wa inni saalihu nga xam ñun ñëpp li ñu daal tey ji mooy yéex a jóg ba pare dabe mooy yéex a jóg ba pare dam mag ñe te loolu Serigne Saliou moo ko defal jaaxal Cheikh Saliou yëtal njanoo sa dem gi daal jaaxal nanu yow la nu xam nga banu nga dem banu nga dem di jëlee te xel mu dal Cheikh Saliou sa dem gi daal jaaxal nanu yow lanu xam nga dem banoo nga dem banoo fu ni jëlee te xel mu dal Cheikh Saliou wetal nga noo sa dem gi daal jaaxal nanu yow la nu xam nga dem bano nga dem bano oh, te xel mu dal Cheikh Saliou wetal nga noo sa dem gi daal jaaxal nanu Cheikh gi xam nga dem banoo asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu mbokki jullit yi mbokki taalibe yi mboolem mbokk yi nga xam ne ñu ngi seetaan seen télévision ma fatul Bichri niñ leen ko waxoon léegi rek ba tey noo ngi fii ci Xelkom ci tool yi nga xam ne niñ ko waxoon léegi rek Serigne Saliou Mbacké moom mooy ki nga xam ni moo ko fi indi waaye muy barab boo xam ni dañ fiy liggéeyal Serigne Touba mbokk yi xam ngeen ni saa yu wootee Xelkom dañ koy defee ni ko saxaaba yi doon defee mooy tanazaul mawtu maan wal kullu minhum sujaa looloo waral kenn ku ne gis li nga xam ne oto yi ñoo ko war na def ak sareet yi dangay ngay gis ne mbokki taalib yi ñoom ñoo koy def mooy dañuy jël ngooñ mi dagg ay saaku loo xam ne mooy tudd ay parla su ko defee di ci sëf ngooñ mi di ko transporter di ko yóbbu ci ay jal yu mag su ko defee camion yi fekk ko fa su ko defee man koo roñ man ko yóbbu ca jal bu mag ba loolu nag xam ngeen ni mooy tudd rek liggéeyu Serigne Touba te xam ngeen ni bokk na ci li Serigne Touba rafaatale Serigne Saliou Mbacké mooy tuubaa li abdin muridin saadiqin lahumu bi xidmatin mooy xel koom aw bi xubbin mooy bëgg sëriñ tubaa ba mu fees dell sa xol aw hadiyaati ak koo mën a yaakaar ngay jox ki fi nekkal addiye sëriñ Touba muy sëriñ Saalihu Mbakke waaye xam ngeen ni moo tolloog masaratan li kulli abdin saalihin qaidatan li aslahil masaalihi mbokk yi kon liggéey bu tedd bu sell bu mel nii nga xam ne saa suñ ko déggee xàmmee wunu kii liggéey ci bureau xàmmee wunu kii ambulant xàmmee kii liggéeyal boppam waaye ñun ñëpp kenn ku nekk day bàyyi ay yitteem ñu ñëw fii ba kere tool yi dàgg ana man mbégte nga yëg waaye nga expliqué lu nan li nga xam te ne noonu ngeen di liggéeyee liggéey bi ba ngeen ñëwee ba tey. salaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakatuhu waa Bichri TV ñoo ngi leen di siyaar di leen warmaal di am mbégte lool wax dëgg yàlla ci taxawaay bi nga xam ne taxaw ngeen ko ci toolu Serigne Touba bi Serigne Salih Mbacke ñoo ngi am mbégte bu baax a baax a baax liggéey bi mooy ni ko Serigne Touba rafaatale Serigne Salih Mbacke mooy ñu liggéey ci euh, euh, tooli Xelkom yi ngir maanaam làq ci ngërëm bi nga xam ne maanaam Serigne Touba daana ko lig daana ko làq daana ko ngërëm mag ña maanaam euh, gone yi ñun gone ñu amee ci loolu li nga xam ne mag ña euh, amee woon na ko ci kon nag ñoo ngi ñoo ngi euh, maanaam am yéene am taxawaay boo xam ne maanaam mag ña amoon la mag ña làqoon ñu làq ko ci moo tax ñu ñëw bàyyi suñuy yitte bàyyi suñuy bërëbu liggéeyukaay def fii fan ñu ñëw maanaam samedi lañ fi yegg si samedi ba léegi ñu ngi ci liggéey bi waaye euh, euh, maanaam di ci def suñu kem kattan saako yi moom ngeen dajale ngooñ yi di ko yóbbu ci barab yu mag yi maanaam euh, moom lan moom lan xooj ñaw ko def ko ay saako maanaam di ko di ko di ko yóbbu ci ba maanaam jal yi ngir ngir maanaam liggéey bi gën a taw feexe ba xam ne bu oto bi yegsee rek du doon jafe-jafe ngir ñu jël ko aj aj ko maanaam man noonu toog ne dajale nañ ko pare oto bu ñëwee bu ñëwee taxaw fii yóbbu ko wala ñu am ay sere di ko yóbbu waaye defuñu ko danoo danoo euh, noppi euh, temps bi ni jël ngir xaar oto yi ñu ne déet nan xool ma xam ne maanaam jàll bi nga xam ne moo gën a mag ñu dajale ko wala bi nga xam ne moom la oto yi gën a jekku ñu ñu ñu ñu dajale ko ngir bu oto bi ñëwee ñu aj ko ci lépp ngir eh, bëgg a làq ngërëmal sëñ Tuubaa ngir bëgg a làq ngërëmal sëñ Saliou Mbacké loolu mooy kàddu yi xam ne maanaam yëg ci nag xol bu sedd guy waa ci barke Cheikh naa am wax ndax it maanaam eh, lii yombul ndax it eh, jafe àdduna ak xat jamono dafa toll ci maanaam boo dee ndaw maanaam sëriñ bi woote maanaam gàllankoor yi lay gàllankoor daa bari lool sant nañ Seex na Seex na Ahmadou Bamba ngir maanaam taw xiir taw feex gi ñu defal ñu mën a ñu mën a teewee maanaam bërëb bi ndax it bëgg fee teew taw fee teew ñu fi mooy tax na teew fi kon nag ñoo ngi koy sant di la gërëm di sant waa Bichri TV nga xam ne ñooy suñu mbégte ñun waa Mafatihul Bichri bég nañ loolu jërëjëf suñu kosa ah jërë ngeen jëf mbokk yi nga xam ne yéen seetaan seen télévision Mafatihul Bichri ba tey ñoo ngi ci tooli Xelkom incha allahu taala ci liggéey bu sell bi nii rek lañ fas yéenee ànd ak yéen incha allah ba tooli jeex المظلمة فانجرين سارقا كل مريد سارقا تجعل وخادر سارقا بالإمام أمتون برجف سرين سالي برجف سرين سالي barke Sëriñ Saaliw mam ji rey na seere ko kulu murit seere na ko Tijaan wa Xaadir seere ko ku mel ni moom amatul جاء ربنا الكريم جزاء ربنا الكريم على خليفة الخديم سالي الخديم قد كان يكمل الأمان الخليفة الخديم سلينا ابن الخديم هل كان يكمل العمل كل مريد جاي لما sunu sang bii le nëbbu na bun gisatee sunu sang ba yowmal xiyaam la tey aw xamal di murit tey jooy la ma sunu sang bi na mun gisa dee sunu sang ba yowmal xiyaam la tey aw xamal Sëriñ Saaliw di buri tay jooy la ma sunu sang bi te nëbbu na bu gisatee sunu sang ba yawmal xiyaaf la te yow xamal Sëriñ Saaliw jooy naa ko jooyu xol yu foor man ñàkk naa wurusu fa jant la moom moo tax mu muur leeru ngeen jëf mbokk yi ba tey noo ngi fii koom ci daara ji nga xamante ni mooy Daaru Xuddus xam ngeen ni ñu leen ko xamal léegi ñu ngi leen di toppal seen télévision ma fàttul Bichri liggéey bi nga xamante ni moom lañu woote fii ci xelkoom di ko liggéeyal Cheikh Ahmadou Mbacké moom Serigne Saliou Mbacké mbokk yi xam ngeen ni ñu leen ko waxee kii ñu jàkkaaral mooy Serigne Abdou Ndiaye nga xam ni daara ji ñu nekk mooy jëwriñ ji lépp loo xam ni moo fi jëm ci wàllu coordination bi moom mi mooy ki nga xamante ni moo ko doon woote waaye moo ànd ak mbokki taalibe yëpp di ko liggéey liggéey boo xam ni liggéey bu sont la kon mbokk yi ni ñuy def rek mooy fas yéene laaj si ñëpp euh, liggéey bi waajtaay bi waaye bi nu ñëwee ci biir liggéey bi ak euh, boo na doon tiiral bilan maanaam liggéey bi fan lañ ci toll fi mu ne. waaw liggéey bi de moom mooy bi ñuy sëriñ bi baaxoo jox ginnaaw bi ñu jiite léegi suñuy nuyoo liggéey la boo xam ni dañuy ji gerte bay ko naaf ko foofa la ñu ko dong yi bàyyeele li ci des ñu àggale ko mooy bàcc jëri roñ gerte geeg ngooñ mi. ñi ngi ko woote woon àjjuma ci ndimbalul yàlla ak tawféexam nit ñi wuy si nañ ñi wuy si bu kawe suñ jort dëgg la dong yi lañ ko jagleel waaye ñun ak ñëpp ko bokk boo seetee ñi ci ëpp sax dañuy dong àjjuma ji biñ ñëwee rek gaaw bi dañoo xëy njëriñ yemb dimanche beeg altine bi. ci lañ roñ gooñ bi kon man nañ nu yéen nga ñu fekk ci mujjantal bi gerte gi lépp dugg na ci magasin bi ngooñ mi tamit fii ñu toll dama leen a wàcce timis ju weesu na sax waaye dañ ne comme balaa gee lépp mën na àgg ñu ngi jëli dernier voyage moo tax ñu ne nañ indi lépp tey ndax Daaru Xuddoos mën a noppi dañ koo liggéeyee no xareñ nag ndax dañoo bàyyee ku nekk la man nga di ko def bu ko defee lépp yegg yembandoo lépp lépp jekk tool yi tool yi Sëñ Tuubaa loolu yaakaar naa yàgg nañ leen ko leeral ni sëñ Saliou moo ni comme sëñ Tuubaa amul woon ay tool nañ ko wutal tool yoo xam ni lu fi ñore ñu delloo ko ko njaboot gi fi ñëw itam ñu leen di yar di leen liggéeyloo te leen jàngal ndax loolu mooy diine fii lañ nekkoon ba jógee fi ñu santaan ñu ko moo tax biñ ñëwee ñiy jëri dañuy jiituy jëri ñu ci des di settali liñ jëri ñi ci des di ko sol ci saaku jigéen ñi ñi gën a néew doole defar pàkk nga xam ne kon jëri bi am na système bu ñu koy jëree. daa am système bu ñu koy jëree ndax ni ñuy jëree ñëpp xam ko fourchette moo mën a jëri lool waaye mag ñi nekkoon ci daara ñoo ko xam boo ko jëree nag ba mu des set mag ñi ak jigéen ñi danañ ko mën a jëriwaat ba du am benn lenn luy taq ñu jëlaat ñu xaw a am kattan sol ko ci saako takk ko am ñoo xam nag bu ñu ñëwee saako yi fi ñu ko fekk rek dañ koy jël yóbbu ko ci barab bi ñu ko war a denc mooy ci biir magasin bi ña gën néew doole nag ñooy for fi mu nekkoon ba benn taq-taq du fa am. ak di lay ak waaw ah, lay bi mooy gën a yomb ndax boo layee gerte gi day génn ak yenn xeer yi ñu tànnaat ko ba gerte gi rek dañ ci des si ñu dugal ko ci biir saaku yi loolu ñun moom lañu itti woo nga xam ni kon euh, fii ñu nekk ci Daaru Xudóos mel na ni wax nga ko léegi am na yeneen daara yoo xam ne ñoom it ñu ngi fi te it euh, incha allahu taala mboole mi bu noppee dañuy dem rek song loolu mooy mu noppi. waaw ah, boo seetee fi ñu toll Daaru Sakkoor moo ci topp moom jotuñu faa teg jenn jëwriñ ndax liñ bay daa bëriwut daanaka daaw la njëkk a bay. ci bi la. ci sanc sëriñ bi la. fukki daara ak juróom a fi nekkoon dëgg la li ci sëñ bi yéene woon am am na lu kawe njort sëñ Cheikh sañ ci yeneen daara tudde ko daaru Sakkoor mooy këruk cant këruk cant mi ko sañ ci daaw ci ñaar fukki fan yi ak juróom-ñaar ci weeru daaw jéeg ci ñaar fukki fan yi ak juróom-ñaar ci weeru koor gi ngëneel yi ci dëkkaloo yu bari moo taxoon mu nañ ko ci sañc ren mooy ñaareelu nawetam waaye Touba Xelkom am na jëwriñ mooy waa njaareem ñi Daaru Salaam am na jëwriñ ñuy waa Touba léegi nag bu ñu noppee dañuy daje foofa moo tax ñun suñ pas mooy lépp yëmb fii tey bu ñu xëyee rek ñu daal di dem ci liggéey booba waaye bàcc nañ tool ya ba jëri ko roñ gerte gee ngooñ mi rekk ci des allah foofu lañ fas yéene dem waaye. kon de xanaa sëñ Abdou kon euh, comme ni nga ko waxee léegi euh, woote ngeen ci tuuru sëriñ bi waaye mbokki taalibe yi wuy si nañ ci turu sëriñ bi kon ana ban yóbbal ngay jox mbokk yi nga xamante ni ñoo wuy si woon. waa xanaa ñëpp xam rek ni fii li ko tax a jóg du àddina àddina moom mënta mënta jagal boppam bay yóbbaale alaaxira waaye nag alaaxira la diine mooy loo xam ne boo ko saytoo sa àddina dana ci jag sa alaaxira jag barab yi ñun ci lañ nekkoon ba mat a soxna sëriñ bi yeewu yeewee ñu yóbbaale wuñ métier maanaam xam-xam yi àddina yi nga xam ne xam-xam yi naxaate la tamit yóbbaale wuñ ko waaye nag jaar fi buñ la nangulee day gaawal ab dox am nañuy kër fañ dëkk kenn dàqli wu ñuy kër am nañuy soxna am nañuy warwaay moo tax sëriñ bi daan digle ni doxal jëm ci yàlla boo doxee jëm ci moom dalay gàttandu boo ko amee di nga am àdduna bu dee ci àdduna rek ngay am nag day ngay wut day daw ku la ci ëpp li moo la gën a sonn ci àddina yàllaa ko dogal nii nga gis ñun ñiy jaamu yàlla duñ nelaw guddi di xalaat yàlla ñoom ñi nga xalaat ña leen yaral bor fu seen alal dugg fu seen nangam dugg moo tax kiy jaamu yàlla li muy mën a maye ci xaalis kiy wut àddina du ko xalaat loolu lépp nag yàlla la soob mu def ci topp gi dal gi def ci àddina coono yi xadaruhu xaadal muna bila kadar li man yuhibbuhu ma anhu darar xadaruhu saaqal xiqaabi wal xisaab li xayri man yuhibbuhu ma li jàpp sëñ Tuubaa nee na àddina ku la ko gën a xam moo la gën a sori yàlla <laughs> ñun add ñun ñun àddina itteeluñu yàlla ñu itteel am giñ ko am nag moo tax ba fu ñu nekkati neex dafa mel ni kon li sëriñ Tuubaa ñaanoon ni àddina def ko muy sama yóbbal ba àjjana ñun loolu ñun ñu ngi koy dund dëgg dëgg dund ko ndax suñu àll bi ak poussière gi ak guddi gii moo ñu dàqal ndakaaru guñ dëkk ca Medina nga xam ne fi ñu toll boo demee jaxasoo gàngam fii moo ñu ko dàqal. <laughs> ah jërëjëf sëñ Abdou xam nga télévision bii di Mafatul Bichri day mel ni tey jii am na mbokk moo xam ni eh, bu gisee sëñ Abdou rek dana bëgg ndax xay na mi ngi woon fii ci réew mi te moom ma nga ca réew yu sore sore di seetaan Mafatul Bichri ana lan nga leen di wax ci seen télévision Mafatul Bichri. xanaa am ci mbégte rek te xam ni télé bi wuyu na turam Mafatul Bichri wal am ni wal janna mooy caabi joo xam ne day ubbi mbégte moo xam ne bu ubbi ko day am sécurité ba kenn du ko mën a yàq lool nag mooy ñoddi nit mu tàbbi àjjana loolu la téere bi tudd ñu ciy bàyyi xel rek xam ne njàngaleem sëriñ bi lay woote ni mu koy defe fii di ko defe ci yeneen kër comme nag lu baax daa bari te ñu bëgg a taatan lépp ndax amaana ba nga cay xeeb moo lay jariñ xañ na koy bàyyi kër gi lépp di nga ko taatan yàlla nañu yàlla defal déggu ànd ak topp wasalaatu wasalaam ala rasulillah ok ngeen jëf mbokk yi kon noo ngi woon fii ci Daaru Xudoos ni ñu leen ko waxee léegi dégg ngeen sëñ wax ju am solo ji nga xam ne wax na ko te loolu mooy li nga xamante ne naka jekk Serigne Saliou Mbacke looloo taxan mu waxan ni nañ ma dox ndaw ñi ma def ci ñoom li Sëñ Tuubaa defan ci mag ñi waaye daan na waxit ni kuñ dëggal taxanaaje boo jógee dabe waa kay jërë ngeen jëf mbokk yi gis ngeen nag bi ñu jógee ci ngooñ moomu nga xam ni mooy mboolem ngooñ mi nga xam ne moo jógee ci tool bi fii ci daara Daaru Xudoos lii sunu ginnaaw nag mooy gerte gi nga xamante ni moo bàyyi ko ci tool yi waa sëñ Abdou lii moom kii maanaam suñu borom la mel na ni kon euh, yaakaar naa ne bu ñu xamee tonnage yi nga xam ne moom lañ fi jiyal kon danañ xam ne kon sunu borom def na ci ak nangu bu baax a baax ndax li suñ ginnaaw moom ko gis da nga xam ni wax dëgg yàlla tool bu nangu rek moo ko mën a génne. waaw sunu borom nag moom daa wuute nit moo tax li mu gën a bëgg la nit gën a bañ yàlla li mu gën a bëgg mooy ko taalal loxo ni ko ooma dara may ma ci li nga yor mm-hmm. antumul fuqara ilallah wallahu huwal ganiyul hamid nit nag li mu gën a bañ mooy ku ne ko may ma ci li nga yor moo tax yàlla kenn du moom. gis nga 40 tonnes lañ ji yoon ci gerte waaye lii moom ko ko seet dana bari lool moo tax alxuraan ni ñi nga xam ne dañoo yor lu baax di ko defaat ci yoonu yàlla kamasali habbatin an batat bi sanabila fii kulli sunbula mi atu habba wallahu yudaa'ifu liman yashaa benn pepp boo ko jiyee ngeen jaa tuuti man naa saxal juróom-ñaari gub gub nag bu doon bokk rek gub bu nangoo dana saxal lu man ñetti téeméeri pepp moo tax lu yàlla nangu amut yam waay lii lépp ak nangu la waaye lépp tamit ci jullit rek la dellu si ndax sëriñ bi ñu ngi ko xamee ci jàkka yori nit ay daara loolu rek lay def moom nee na àdduna bu doon aw say la jàppoon na ne takk na ko ba yanu ko dem rek ci des bi fi sëñ bi jógee nag la waajaat te xam ne àdduna kenn du ko jekku kon nag nañuy jaamu yàlla xattaa yaat yeeg al yaqin moo waral lii jërë ngeen jëf mbokk yi nga xam ne yéen a ngi seetaan seen télévision Mafatihul Bichri dégg ngeen kàddu yu am solo yooyu nga xam ne jëriñ sëñ Abdou Ndiaye andi na ko muy kàddu yu am solo nga xam ne wax na ko ca li jëmmi tool yi yëpp wax waajtaay wi waaye dégg ngeen lu am solo li nga xamante ne andi na ko ci nangu gi nga xam ne suñu borom nangu na ko waaye dégg ngeen misaal mu am solo mi nga xam ne joxe na ko te loolu di alquran mooy euh, li nit gën a bañ la yàlla gën a bëgg moom mooy nit lim gën a bañ mooy ku ko laaj waaye yàlla lim gën a bëgg mooy ku ko laaj nga xam ne loola wane na ceet euh, aaya boo xam ne suñu borom subhanahu wa taala taala moo koy misaal ci jullit ñi nga xam ne dañuy jël seen alal di ko def ci yoonu yàlla nga xam ne kon loolu dana wane ne kon wax dëgg yàlla lii ku ko gis dana xam ne ak nangu la te lépp sëriñ Cheikh Saliou Mbacke yàlla na fi yàgg te wér da koy wëlbatiwaat jëlaat ko defaat ko ci euh, euh, ci ci lépp mu defaat ko ci njaboot gi ndax mbokk yi xam ngeen ne fépp foo dugg ci réew mi gis ngeen sëriñ Cheikh Saliou liggéey bu réy ba mu fay liggéey maanaam fépp fu gën a seer fu gën a doon point nit ñi di ca xalaat ab station wala ñu ci xalaat tabax fa ab immeuble di ko louer sëriñ Cheikh Saliou jël na ko def fa jàkka def fa juma def fa ab jàngukaay ba nga xam ni moom laa maanaam lépp loo xam ne Serigne Touba doon na ko ñaan muy zurriyatan tayyibatan tujaddidu nahja nabil Moustapha tajtahidu mel ne loolu lépp moom rempli na ko waaye nag ni ma ko waxee saa rek sang bu baax ba sunu wasila wa sunu yaakaar ja Serigne Saliou Mbacké damaa wax ni bu dul mooma nuróo na sëriñ tubaa daa wax ni masarratan li kulli abdin saalihi qaidatan li aslahil masaalihi nga xam ne ma nga ca xasida ak 313 muy koo xam ni mooy mbégum jaam ñi ba liggéey ku nar a baax ku nar sa mbir yéwén da nga womat sëptum jox ko yàlla na ko suñu borom fayal ndax mooy ki nga xam ne moom la sëriñ tubaa waxal ni asaalihu lasi yu kamil amal ok jërë ngeen jëf mbokk yi ñu ngi sant sunu borom subhaanahu wa taala di julli ci seydina muhammad sallallahu alayhi wa sallam moom mi nga xam ne moonu mayan ñuy teewe ay at fii ci xel koom waaye tey jiit mu may nañu teewaat fi gis ngeen liggéey bu am solo boobu nga xam ni wane nañ ko ak yéen mooy tool yi ak liggéey bi nga xamante ne mbokki tali bi doon nañ ko def ci tool yi waaye dégg ngeen yu am solo yi nga xamante ni mbokk yi ndajeel ci biir tool yi commentaire yu am solo yi nga xamante ni wane nañ ko fi waaye mbokk yi xam ngeen ni nañ leen ak lu baree bari ci tool yi moo xam ca waañ wala moo xam leneen la loolu lépp rek seen télévision ma fàttali bi su wan leen ak moom waaye mbokk yi xam ngeen ni euh, ki nga xamante ni mooy jëwriñu liggéey bi di Serigne Abdou Ndiaye dégg ngeen kàddu yu am solo yooyu nga xam ni wax na ko fi mu jëm ci euh, liggéey bi ni nga xam noonu lañ ko wootee ak ni nga xam ne noonu la ko mbokki taalibe yi wuysee loola lépp nag dugg ci euh, tawfiix ji nga xam ne am nañ ko ci ni ko sëriñ saali Mbacke woote woon te muy Serigne Touba mësta am ay tool waaye faw ñu wutal ko ay tool loola dégg ngeen leeral yu am solo yi nga xam ne andi na ko ci waaye mbokk yi xam ngeen ni gis nañ loo xam ne lu am solo la loo xam ne sëriñ ab Ndiaye it andi na ko tiire ko comme bilan muy lu am solo ci gerte gi ren ni nga xamante ne noonu la nangoo nga xam ne kon fii ñu waxee ak yéen tool bi ñu nekk di Daaru Xuddoos lu ci bare bari yemb na suba ñu war a song nag daaru sakkuur buñ fa jógee nag door a dem daaru salaam nag nga xam ne kon foofa dafay mel ni fa la jëwriñ yëpp di daje nag incha allahu taala liggéey ba lépp yemb ñu door a mën a yewi mbooloo mi mbokk yi xam ngeen seen télévision Fathul Bichri yitteem rek moo yaatal comme ni mu ñëwee ci biir xasida gi wazaata lii tawziatan yaxbitu nii fiiha siwaaya lii anartaata nii moo waral lépp loo xam ne dégg nañ ko mu yëngu ci liggéeyal Serigne Touba saa yoon xoolee ba yëg ni lii liggéeyal Serigne Touba rek dañuy daal di jël équipe bu dynamique ànd moom xam ngeen ni gis ngeen mbokki taalibe yi nii sëriñ Mor Mbaye mu ngi nii nga xam ni mooy monsieur le DG ñu ànd ak moom waaye xam ngeen ak suñ jëwrinu bi nga xamante ni mooy sëriñ Seydou Sakho nga xam ne mooy jëwrinu programme bi waaye gis ngeen ko ñu ànd ak sëriñ Mourtala Gueye géewlu Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul waaye ñu ànd ak soxna maam Anta Dem borom liifantu waaye gis ngeen ko ñu ànd ak soxna Yacine sama jarbaat borom euh, xam sa bopp mooy émission yu am solo kon mbokk yi waaye ànd nañ ci caméra bi sëriñ Gora Diallo mi nga xam ne diggante Njaareem ak Touba mooy jinney caméraman yi moom it mu indi fi liggéey bu am solo kon mbokk yi seen télévision ma fa jëbsi lii rek la leen indil soxna maam Anta Dem tool yu mel ni nga xam ni liggéeyal yàlla la tey yàlla dogal na xëy na bokk na ci euh, bis yi nga xam ne ci nga jëkk ñëw xel koom ban yëg-yëg nga am waaye ak nit ñi nga xam ne noonu nga fi gis nga xam ni dafay mel ni li alquran di wax ni saari'u ila maghfiratin min rabbikum day mel ni loola gis nga ko waaye inna allaha astara minal mu'minina anfusahum wa amwaalahum loolu lépp day mel ni boo fi ñëwee ci tool yi da nga koy gis waaye dangay gis te gis tanazzaul mawtu ma'an wal kullu sa sajaa kenn ku nekk lam gën a baaxle ga gam gën a le moom la indi fi toole xel koom soxna maam ta asalaamaaleykum wa rahmatulah sëriñ sëriñ Koso wax ji na solo lool macha allah ñu am di leen nuyu di leen ziare comme ni mu ko waxee ñu tey dañoo bég lool ba duñ mën sax wax ndax mooy suñ premier jour fii ci kom ñu koy sant yàlla di ko sant Mafatihul Bichri nag ndax Mafatihul Bichri mission Mafatihul Bichri ci lañ ñëwee fii ci Xelcom loolu ñu ciy sant yàlla bu baax di gën a rafet njort ci télé di gën a am yaakaar sëñ ko soo wax nga dëgg fii xàmmee wuñ sëriñ ak dong ak taalibe borom daraja borom xaalis comme ni ko sëñ bi waxee lépp solo fii mooy liggéeyal yàlla liggéeyal Serigne Touba. comme ni nga ko waxee ci biir rek Serigne Cheikh Saliou muy la Serigne Touba waxoon ci zurriyatan boobu mooy Serigne Cheikh Saliou ñu koy ñaanal yàlla may ko gudd fan waaye lépp Cheikh Saliou Mbacke la. man sëñ Gora dama ne ko tey sama yaram dafa daw dama sëñ Saliou Mbacke dafa nekk sama référence ci liggéey bi may def. ma ñaan yàlla yàlla naa am ay sëriñ saalihu gone guñ ma indil mu nekk sëriñ saak classe bu ne am naa fa fukki sëriñ saalihu tey ji suba dañ maa indilaat beneen sëriñ saalihu école ma jooy tey ma ñëwaat xel comme Serigne Saliou ñu sant yàlla bu wér a wér di ñaan yàlla yàlla nañ ko yàgg fekkee. Mm. di ñaan ma faatur bis bi yàlla na gën a yokk. Mm, mm, at yëpp yàlla na at bi gën a yokk di ñaanal suñ directeur bu bees bu moom tam. yàlla na ko yàlla barkeela li mu yéene ci ma faatur bis ak ñëpp yàlla nañ ko yàlla defal. kontaan nañu macha allah ko Kosso di jox ñëpp. dig daje ba beneen yoon di leen wax asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. ok jërë ngeen jëf mbokk yi kon lii mooy li nga xamante ni moom lañ leen jëlale woon xel kom xam naa ni Serigne Madiama Mbaye ak Soxna Bilo nga xam ne ñoo nekk ca régie ko wax rek wax Serigne Saliou waaye ku wax sëñ Madiama wax xelkom kon mbokk yi lii mooy li nga xam ne moom lañ leen seen télévision ma fatul Bichri jëlale woon xelkom wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu